ci info du matin ci télévision Futur Média Lamine Samba mbégte la am bokk ak yow plateau bi. non mbégte bi se partagé. maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant bu baax a baax. Mm-hmm. Fatia Chérif maanaam moom ñoo bokk association mais association boobu après dinañ ko leeral quoi. <laughs> dafa dafa am lu grave lu am lu xew quoi. maanaam mm-hmm. damay wax Cheikh Tidiane Diaw rek ne ko matinalement vote. fa laa yem quoi non. Euh, non yàlla dafa garaaw quoi gis nga lii ñuy def nii. waaw maa moom dañ ko doon def. Mm-hmm. Walf. six heures du matin. mais dafa am lu ci juddoo woon lu bari loo xam ne après lay leer quoi. mais maa ngi am kontaan trop. non mi ngi daw. mi ngi daw <laughs> mi ngi daw. ñuy wax sénégalais yëpp nii incha allah rabi nañu ñaan rek. ni lañ ko fas yéene defe mm-hmm. euh, comme ni ñu koy waxee rek. matinalement vôtre ñu fas yéene leen jox. ah euh, dose bi ngeen yitteel ah ci wàllu information muy information boo xamante bu leer la mais je tiens à ce que ma leeral lenn fii ñu taxaw nii Lamine Samba journaliste bi moo fi taxaw pour joxe information mm-hmm. tout court mm-hmm. infor <laughs> non le tout petit journaliste bu joxe information tout court aha ci li ci yéenekaay ok ñu tàmbali li ci yéenekaay yi ak euh, Euh, je crois que mun nañ ko tàmbale ak euh, l' observateur yéenekaay ah euh, l' observateur yéenekaay fi mu dikk ak ñun mooy mbiru Eumeu Sène xam nga boobu ak léegi ñi ngi doon wax ni Eumeu Sène dafa am ku doon bëgg sàcc otoom bi mu bëgg sàcc otoom ah nit ñi ñëw faat ko mais gis nañu ni baayu xale bi dafa dugal Eumeu Sène ne lépp lu fa amoon mi ngi Eumeu Sène fekkee woon na ko donc am na ci ñaari jegeñaale Eumeu Sène yoo xamante ni sax nëbb nañ leen jant bi waaye l'observateur yéene kaay tey fi mu dikk ak ñun dafa ne Eumeu de dugg na ci rapitub Samba Laobé su na suñ ne nag dugg na ci rapitum sambalaw bi mooy dina wàcc mais du wàcc fi ko neex ndax euh, autopsie bi li mu génnee mooy xale bi dañ koo dóor ba mu mokk ba mujj génn àdduna artémisia bi nga xamante ne nii ñi ngi ko ñi ngi ci doon wax boobu ak léegi euh, ci mbiri euh, coronavirus nee nañu nan la ñu war a mën a def mun ko yor fii ci biir Sénégal it ku yor l'observateur di nga ko gis ci biir waaye tifaare saaga yi Moustapha Cissé Lo saaga yaa xam mbay ak ki nga xamante ne moom mooy Farba l'observateur yéen kaay dikk na ci ak ñun nee na lii moom dafa ëpp ah, ba mu ëppee ba tuuru ci la palais bi ñoom ñoom it jóg Euh, ne nanu rëq euh, ndiggu mustapha siselo noonu la ko l'observateur yéene euh, xamale tey jii su suba booy xool Mansour Wade ñu bari dañ koy fàtte ci équipe nationale bu Sénégal ci góol yeeg yooyu naka sudul noonu kii di l'observateur yéene kaay dikk na ak ñun ne mënuñu war a mën a fàtte Mansour Wade ci atum 2002 ndax li mu def ci Sénégal ni mu doon tàggatee gaynde yi ci wàllu góol ak ni nga xamante ni doon na ko góole ci jamono yu yàgg ya Mansour Wade mi ñu bañ a fàtte l'observateur yéene kaay dikk na ci ak ñun gannaaw l'observateur yéene kaay am na beneen yéene kaay boo xamante ne nii dikk na ak ñun euh, ci weneen fànn apulaay ñu ñëw ah waaw euh, les échos les échos dafa dikk ak ñun ci euh, mbirum Eumeu Sène ba tey parce que lu defu waxu lu aay di njàmbat léeg-léeg tur dina tooñ boromam léeg-léeg nit dana du def sax fàtti ñu ñu ñu raaxaale ko ci mu ne mbiru autopsie bi Euh, dafa dugal jege ñaale ëmma seen yi waaye boo yoree ci biir euh, les éco yéenekaay euh, autopsie bi nga xamante ni nii moom la aji fajkat yi def moom la fësal ci xëtam mu njëkk mbiru Moustapha Cissé Lo mi ñu ne ndax dañu koy dàq ci APR wala déet commission de discipline bi dinañu daje ñan ñoo seq commission de discipline bi les échos yéenekaay leeral nañu ko ci biir am na ci ay kàngam yoo xamante ni ñoo fare ci APR ñoom lañu jox Euh, ndomba tànk loolu ngir ñu xool nan la ñu war a mën a def ba dàq Moustapha Cissé Lo euh, ci biir APR ndax wax ja dafa ëpp noonu la ñu ko les échos yéene kaay xamale tey jii ci suba euh, gannaaw les échos yéene am na beneen yéene boo xamante ni it fes na muy laas laas nee na askan wi am nañu lu leen metti mu ne le peuple sous le choc choc bi nag fi mu bàyyee ko moo doy waar ndax Moustapha Cissé Lo cër bi nga xamante ni réew mi jox nañu ko ko ak ndomba tànk gi nga xamante ni nii moom la yor député CEDEAO nekk premier ministre euh, premier vice président ci assemblée nationale euh, tifaare ay saaga yaa xam ak nga xamante ni moom mooy Farba waaye boo yëree ci biir yéenekaay bi di L'As Quotidien dafa mel ni euh, L'As daf ñu doon wax ni ñii doon nañu togg saabu xam nga lan mooy togg saabu merci booy togg saabu saabu bi ci suuf lay baxee dem ci kaw maanaam mun nga jël barigo di ci togg saabu mais booy togg saabu ci suuf lay lay lay tàngee mhm. jëm ci kaw mun nga jël sa loxo dugal ko ba ci mbiir mu sedd guy mais bu saabu bi commencé ñor boo dugalee sa loxo mu lakk la ndax boo euh, lii far Farba Ngom ak yaa xam yaa xam mbay ak Moustapha Cissé Lo merci waaw waaw waaw dañoo bàyyi ba jaan dem ñu topp bay bayal merci dañoo bàyyi ba jaan dem ñu topp mm-hmm. ca watit la mm-hmm. noonu lañu ko laas quotidien xamale mm-hmm. euh, tey jii ci suba euh, gannaaw ba tey muy ndell yi nga xamante koy sulli ca Casamance ndax boobu ak léegi am na ci benn na daamar boo xamante ni sax daamaru larme la mm-hmm. suuxoon na ci ndell euh, yàlla def na ci jàmm am na ci ñoo xamante ni ñàkk ñu seen bakkan mais am na ci ay way takk der yoo xamante ni gaañu am nañ ci ay gaañu gaañu yu miti miti mm-hmm. euh, quotidien yéen kaay na nag armée bi dugg nañu euh, ca Casamance ngir ndell boo xamante ni ma nga fa ñu sulli ko ci nu mu gën a gaawee ndax Casamance kenn mënu ko génnee ci réewum Sénégal noonu lañu ko le quotidien yéen kaay xamale mm-hmm. gannaaw le quotidien yéen kaay geneen yéen boo xamante ne nii ngi yeewoo fii ci biir réew mi it am na lu mu wax Aboulaye ban yéenekaay la ah. le moom la Aboulaye gannaaw le quotidien. libération libération ah, nee na ah, euh, diggante Sénégal euh, dakaar ak euh, Bamako. Mhm. mbiru terrorisme mi ngi xeeñ. ndax am na ci benn waay koo xam ni teg nañu ko loxo. teg loxo gi ñu ko teg loxo ak ni mu tudd muy Cheikh Dieng. Mhm. dañ ko teg loxo ca Mali. am na ci noo xamante ni daal nee nañu lu ciy lëndëm. boo déggee sombre yaakaar naa ne mooy am na luy lëndëm. Mm. Euh, ci mbiru terrorisme boo xamante ni nii mm. euh, ñu ko fay wax. Mm. Euh, ci saarit nee nañu am na lu fay xeeñ. la fay xeeñ mooy mbirum ger nangam sàngam. loolu na ko l' observateur yéenekaay dikkee. l' observateur yéenekaay dikk na ak ñun. libération ah, libération dafa wax lu aay dem ñàmmal ah. ah, mais ci sa oom <laughs> yi tànk libération Sénégal dafa dikk ak ñun ci feebar bii di coronavirus nee léegi am nañu téeméeri nit ak fanweer ak ñett yoo xam ne ñàkk gum nañ ci seen bakkan mm. gum la ñuy wax ndax bilan bu tey bi waddagul mm. ah, bu ñu jógee ci libération yéenekaay dañuy dikk ci beneen mbir moo xamante ni ni mm-hmm. beneen yéenekaay boo xamante mi ngi yeewoo ci biir réew mi mm-hmm. ah muy Vox Populi mm-hmm. Vox Populi dafa ne ah Macky Sall dugal na Euh, Moustapha Cissé Lo ci rap top Samba Laobé bi ndax lii dafa metti loolu moom moo tax moom ci jëmi boppam moo joxe ndigal ngir ñu lijjanti mbiru Moustapha Cissé Lo ndax wax ci dafa ëpp noonu la ñu ko wax ji waxee waaye nag dafa mel ni euh, ci biir vox populi euh, Moustapha Cissé Lo dafay tontu Macky Sall ne balaa nga naan balaa nga may dàq man ma demal sam bopp mu ne dina tekki ndom bu tànkam bépp boo xamante ni moom la am ci biir APR muy vice présidence assemblée nationale bi nga xamante ne ndom euh, politique la ko amee woon dina ko tekki léegi député simple lay doon mhm. te tey jii ci suba ci jamono jii ñuy wax ak yéen sax su nekkul ci tànki dem assemblée nationale euh, Euh, yóbbu euh, ko ci Moustapha Niass euh, dina jaaxal ñu bari Vox Populi it dikk na ak ñun ah ci waa ji nga xamante ni entre guillemets assassin la tudd. Mhm. dañ ko bàyyi. Macky Sall da koo jéggal ci korite gi. bërki démb mu jël ciseau rey nit. Mhm. Vox Populi ne ba mu reyee nit bu nuppi dafa dem bu maraîcher ngir jël woto ngir daw fa nga xamante moom mooy Gambie. Mhm. foofu lañ ko tegee loxo doy na waar ah. ñu gracier la ci korite. Euh, matul ñaari weer mbaa ñetti weer nga rey nit delluwaat kon dafa mel ni dafa moon delluwaat mm-hmm. lañ ko mën a wax <laughs> sax euh, ban la defoon sax laata ñu koy bàyyi parce que dañuy mm-hmm. gracier waaw xam ne euh, yenn ñoom bay kenn du leen gracier mm-hmm. mooy comme rey nit ak trafic de drogue ak viol pédophilie léegi day crime yoo xamante ni nit bu ko defee kenn warul la bàyyi wéy ok nee nañu université yi dina ubbiwaat le premier septembre Euh, comme ni euh, xale yi nga xamante ñu ngi def examen. Mhm. ubbee euh, ci weer wi ñu génn. Mhm. nee nañu nag Vox Populi nee na école bi dina ubbiwaat ay université yi dina ubbiwaat. Mhm. ci benn fan ci weeru septembre. noonu lanu ko vox populi euh, xëy xamale tey jii ci suba mm-hmm. gannaaw vox populi ñu dikk ci beneen yéenekaay boo xamante ni mooy yeewoo fii ci biir réewum Sénégal muy source A euh, mm-hmm. source A dafa dikk ak ñun ci gazelle oryx yi nga xamante ne nii dañu leen transféré mm-hmm. am na sax ab ju ñi nga xamante ne tudd nañ ko ci euh, gazelle yooyu nag am na ci ñoo xamante ni nag miin ñu coom la noonu ndax loo xamante ni àll miin nga jël ko dugal ko ci ab daamar nar a daw moom ay kilomètres kilomètres am na ci ñoo xamante ni nii ñàkk nañ ci seen bakkan euh, kii euh, jëwriñ la woon euh, ci jamonoy Macky Sall moom it wax na ci mbiru Moustapha Cissé Lo ci biir source a Mbagnick Ndiaye Mbagnick Ndiaye nee na képp koo xamante ni jàpp nga Assane Diouf waroo bàyyi Moustapha Cissé muy noyyi ci ngelaw péex bi ndax li Moustapha Cissé def ak li nga xamante ne ni moom la Assane Diouf def ñoom ñoo bokk ndey baay yumpaañ bàjjan maam. loolu la Mbagnick Ndiaye def. <laughs> Ngodo Lamine Samba revue de presse bi am na solo. waaw loolu comme comme comme première la. waaw nii la c'est en forgeant que ah, <laughs> <laughs> kon liggéey bi liggéey bi daal rafet na ah. macha allah ñu ngi lay sant. gërëm ak sant euh, di la gërëm mais sànq tàggat yaram Chérif. yaa euh, ngi doon wax. làmb ji waaw maa ko doon wax ne Lamine comme moom ku ne xam muy chroniqueur làmb mag fii ci Sénégal ah c'est le plus grand chroniqueur maa la tabu tabu googu. <laughs> mais mais malheureusement dafa am ñaari événement yoo xam bëgg nañ ci wax benn bi mooy euh, affaire Eumeu Sène boobu comme yéen yéen ak ci làmb ji di suivre dossier également muy loo xamante ni euh, dossier la boo xamante ni ñu ngi koy ciy tudd sàcc oto et cetera euh, fan la mujj la. je crois que les les commentaires sont mm-hmm. mais bien sûr am na waaw les faits sont sacrés les commentaires sont libres bien sûr je crois que génn nañ ci faits yi commentaire bi. Mm-hmm. man sama jëmmi bopp j'ai eu Eumeu Sène au téléphone man personnellement. Mm-hmm. Euh, jàpp nga nii nii euh, damay def journal RFM samedi ak dimanche bi bàyyi xale bi ñëwee ba tuumaal ko man woo naa Eumeu Sène mhm. mu ne moom ci jëmmi boppam lu tax du wax mooy gendarmerie woo nañ ko entendre ko. bi ko gendarmerie woowee ba entendre ko ba noppi. Mm-hmm. kon donc moom lépp lu muy wax yoon la koy wax. Mm-hmm. du ko wax ay taskatu xabaar. loolu la ma wax mu leer. kon ci boobu fànn. Mm-hmm. mun nañ jàpp ni Eumeu Sène loolu la wax. kon loolu la ñuy jàpp. très bien ci beneen point bi mooy Jules Baldé Junior benn mbër la bu gaañu. feebaroon feebar bu yàgg mais man laaj bi mooy laaj mooy parce que gisoon naa ñu ko fi doon ketal et xanaa yéen mbër yi ñoom duñ dem ci CMU bi di ñu leen di. ci enrôler foofu su ko defee ku am jafe-jafe ñu mën laa taxaw. dafa am dafa am loo xamante ne dama la koy xamal muy lu tuuti muy mbër <coughs> baal leen ma muy promoteur. privé la. mbër mu gañee xaalis ci poosam la koy yóbbu moom ak njabootam. bu gañee xaalis poosam la koy yóbbu moom ak njabootam est-ce que forcément mbër mi feebar dañ ko war a jël dem yóbbu ko faji ko bonne volonté yi ñooy jóg. mais mais avant avant nga yegg ci ñooñu mais dañoo am structure boo xamee ni moom moo leen gérer muy CNG. structure d'exception. waaw mais mais mais ba léegi moom mooy gérer làmb ji te ñu bare dañuy wax ni que euh, structure boobu day faral di dagg xaalis ci ay combat te mm-hmm. xaalis boobu kenn xamul euh, fu muy jaar kenn xamul nuñ koy. utiliser xam nga lu indi problème bi xam nga lu indi problème bi. Mm-hmm. CNG amul kenn ku muy rendre compte pour ministre bi directement. Mm-hmm. ministre bi nee na li ko CNG di rendre compte doy na ko. bilan financier doy na ko. bilan bépp bilan xamante ni nii waa mi ngi am ci mi ngi koy jox ministre bi te ministre bi nee na satisfaire na si léegi nee na taskatu xabaar bi ci jëmmi boppam ñoo war a am curiosité ñëw ba ci moom ne ko lii ak lii ak lii ak lii am na lu muy mun a leeral am na lu mu munut a leeral. mais mais avant ngi yegg sax ci affaire euh, nu mu tuddati organisation fonctionnement structure bi mais am na loo xam ne je pense que. Euh, yëfu humanitaire la xaw ma nu mu demee. soo ko xoolee da nga ci war a euh, def sans que. discipline yëpp dama lay dog discipline yëpp ñoo am fédération ba mu des làmb. waaw même bu dul fédération maa ngi ñëw Cheikh maa ngi ñëw dama lay expliquer parce que xam nga tey en matière de football handball volleyball tout ce qui s'ensuit mhm. dañu structuré ba nga xamante ne nii bu la lii jotee lii mooy am bu lii jotee mais maa ngi posé waat benn question. képp koo xamante ne nii da nga licencié. on mille cinq cent et quelques. ci at bii ñu génn. da ngay jënd li nga xam ne moom la ñuy wax assurance. xaalisu assurance boobu anam fan la jaar nan lañ koy jëfandikoo. Mm-hmm. je donne ma langue au chat. nag loolu nag nag pour ñu gën ko leeral. dañ mm-hmm. xaar jongante loolu bii. <laughs> voilà mu ngi noonu <laughs> ay question la yu mérité ay réponses Lamine Samba ñu koy sant bu baax di ko gërëm dig la daje ëllëg ci kàttan. lundi mardi mercredi. Mm-hmm. jeudi vendredi. mu ngoog Lamine Samba ngeen. merci àndal ci info du matin